yàlla mii ma tiim xam na ni gisuñu benn ndimbal. gisaguñu dara mais dañu dégg noonu rek ndax gisaguñu dara de. ah gisaguñu dara de ba léegi gisaguñu dara. ndimbal li dañoo woogu ñu ngi koy wax nag. Ah, ndimbal li de wax dëgg yàlla ci télé bi daal lañ koy gis ñoom. non ndimbal li moom vraiment ñun gisuñu ko. gisuñu dara de. déggaguñu sax euh, dégguñu sax ku ko wax waaw yàlla xam na ko déedéet gisuñu ko fa bokk yàlla mii ma tiim xam na ni gisuñu benn ndimbal jotuñu de waawaaw waaw même même euh, même port bi may jaaye xam nga man quartier tefes gii laa dëkk même quartier bii ma dëkk muy tefes amul benn doomu aadama bu di jox nañ leen ay ndimbal amul gisuma ka gisuma fi ndimbal de gisuma dégguma it ku ko wax te xam nga ni marché bi may jaayee de dara du fa umpe ndax lu xewit marché bi moom xam naa ni mooy mooy marché dëj dëpp gi fii si port bi si marché tefes bii dégguma kenn kenn kenn ku ko du marché gi du liberté ga ma dëkk du sa tëg doo gi tamit may dem di fa añe di fa sangoo sama kër mag dañu dégg noonu rek ndaa gisaguñu dara de waaw te soxla nañu nag soxla nañu yite woon nañ ko lool lool lool lool parce que ñun ay gardien lañu fi lañu fanan di marché bi di jaxantoo ak gaay yi sa way da ngay waru bobu legi ñu ngi ci marché bi di fanan ak ak bëccëg sour bu gaay yi wul ñëw fi monté di liggéey di jabanté gaay yi chaque sour kon xam nga ne di bo amé ko ndimbal lo xamné wax dëgg yalla mën nga ci mëna a ah loolu ñu sant yalla bu baax kon dañu gëna a sant yàlla bu baax ah ñu ngi am yaakar nak nit moom bu xësee bu am yaakar rek naka daram jeexul loolu de mom wax rek def nañu tiis lool lam nit mom boko diggé dara lu gën rek ba do la boko diggé dara du yag nga jox ko ko moko gënal parce que digue mom boko xasse xasee rek amatul la ya-, yaakaar boobu moom fu muy def li ngi ko dig mu ngi koy yaakaar ba legi kon wax de yalla eh, bu ñu sañoon daal ngi jox ñu ko ñu gëna gaaw ah ñu la soxla nañ ko wax deug yàlla gis nga tefes gi ni mel ko ñu da dañuy daan suñu doole rek yobu suñu njaboot ba yëf amé ba tay dal gisaguñ dara bëgg nañ ku ñu dimbale nag ku ñu dimbale te yàlla tax da ñu jël. tefes gi dañ ñëw nit ñi ñëw ñëwaguñu dimbale dañ ñëwaguñu ñu ngi koy wax nak ndax ñun defoon nañ inscription ba dem ci chef de quartier bi ba joxe suñu suñu carte d'identité waaw mais daal ñëwagul ñoom nag xam naa ne waa chef de quartier yi tamit moom jotaguñu ndax ñoom buñ jotoon rek ñu jot wax dëgg yàlla yonent man de loolu ma jaaxal ndax man daal xam naa ne wax dëgg yàlla yonent bi dama def ni yaakaaroon naa daal bu bu yegg si woon ñun daan nañ ci jot ñu dinañ ci jot waaw bu yegg si woon yaakaar yaakaar nañ ñun dinañ ci jot dama def yaakaar daal nañ ñuy egg seegul xanaa man ci li ma yaakaar laa yaakaar am na nag ñuy jot am na nag ñu jot am na ñu jotul wax dëgg yàlla parce que booy wax rek nag na nga wax dëgg ndimbal li moom fii ci Mbour bu passé télé bi ñu koy gis télé bi gis nañ Macky Sall na port ba nag muy tim ay saako di wax waaye gisaguñ benn benn xott saako boo xaye ci ceeb bi la bokk man gisaguma ko man fii ci Mbour te gisu gisaguma tamit koo xaye nee na nee na jot naa ci gisaguma ko normalut parce que lu normal loo xaye normal normalut c'est parce que mënuñu ne ñoom dañoo tëj nit ñi euh, laaj askan wi euh, mille milliards ñëpp boole seen i doole boole di état bi am ñu yëkkati 1000 milliards jox leen ko ñu ne dañu dimbale askan wi mënuñoo gis benn doomu aadama wax ne dimbale nañ la loolu tamit tegewut ci yoon c' est parce que yaakaar nañ ne gouverner euh, da se prévoir da ngay prévoir leen yenn yi mais bu fekkoon nag tey feer yoo fee nekk jëma ñun 6 mois mbaa mu jëma ñun 1 an fan lañ jëm ah parce que ñun suñu état yi pare wuñu parce que buñ waxee li fi nekk mooy seen seen wax moo ëpp seen i jëf waaw ay waxkat la mais duñu ay jëfkat boo xoolee membre ci gouvernement bi seen i jëf seen wax mu ko te luñ la wax tey bu soobu dañ bal li moom vraiment ñun gisuñu ko télé lañ koy télé lañ koy seetaane mais booba ba léegi mosuñoo gis kenn koo xam ne nee nañ jot na ci dara kenn tegu ci bët gis nañ daal ñuy wane ci ay télé naan euh, dund bi dafa war a génn lii la ñuy génne mais gisuñu ko ndimbal li dañ koy wax nii rek mais du loo xam ne question affaire ndimbal la parce que bu bu yàgg lañ ne woon toog leen seen kër yi ñu toog suñ kër yi depuis lu ma trois mois xanaa xanaa mois ku ko toogloo nit ci biir këram xanaa nga am loo ko war a mën a jox mais boobu ba léegi nee nañ pare wuñu pour euh, joxe dund bi ba léegi ñu ngi ci ay xawma lu ñuy réglé ba léegi dara mënut a génne depuis trois mois ba léegi dara mënuñ koo gis dund moom gisuñu ko gisuñu dara di foofu daal quartier gii daal gisuñu foofu dara lu ma nga am lu nga xam ne ci gouvernement bi la jógee jëw ci ci population bi gisuñu foofu dara bindi woon nañu euh, def nañu lu ne waaye dara gisuñu foofu dara daal dara génnewul góor foofu euh, li nga xam ne li ñu déggoon bi ceeb lu ne euh, maanaam li nga li ñu doon gi wax daal gisuñ foofu dara dara ci ci jóge ci gouvernement dem ci population. comme ñoom ceeb bi dañ ñu koo gën a soxla man de li sama xalaat te xam nga ñun ba ñu juddoo ba tey comme ñun dañuy liggéey te liggéey rek la ñu xam te ceeb bi état moo ko joxe état bi ko joxe nag sunu alal dong la comme ñoom mënuñoo fexe ba jox ñu ceeb bi ñu bàyyee leen ko man de moom laa gis waaw man sama xalaat daal ñu bàyyi leen ak ceeb bi. comme ñooñu ko gën a soxla nan jël te ñu dunde lañ daan dunde ndax la ñu dunde tamit ba toll nii war nañ cee mën a continuer yaakaar naa ji ci ci ndax ba ñu juddoo ba tey ñu ngi lekk ceeb ñun tefes lañ juddoo yaroo fa ba toll nii ñu toll kon ñun ceeb waruñoo mën a jaaxal comme boobu ba léegi ñu ngi lekk ceeb te ñu dig ñu ceeb boo ba léegi diiru ñetti weer gisuñu ceeb nañ leen jël ñu saraxaat leen ko ñoom comme ñooñu ko gën a soxla. waaw bu ñu sañoon moom. ñu jox ñu ko di lu gën a gaaw parce que bu ñu xasee dugg ci nawet bi moom wax dëgg eh, a bay liggéey bi di dem ci yooyu kon dañu gën a am na ñu bari dañuy béy am na ñu bari fii mbuur bu ñu tawee rek dañuy dem toole xam nga nit mën na dem toole yow fii di lijjante ceeb ndax ñun suñu xel moom mu gën a profité ñu mën koo gaaw a jot am bu fekkee ne mënoon nañ eh, population yi mën nañ ko jot soxla nañ ko de xaw ma nag luñ ci jublu waaye dégg nañ ñu ngi ci eh, magasinat yi magasin yi waaye ñun daal gisuñu dégguñu soxla nañ ko nag population yooyu dañoo sonn nag. Macky Sall dafa war a xam ne dafa war a yërëm askan wi yërëm néew doole yi yërëm baykat yi yërëm ñi ci àll bi parce que askan wi sonn nañ trop nit ñi boo xëyee fajar gi da ngay xëy fajar ngay gis nit ñëpp xëy ñëw tefes di liggéey si kenn mënut am dara parce que bunt yëpp mu tëjoon na. yërëm askan wi xam ne biñ koy fal fal ñu ko pour moo fi gën a rafet fal ñu ko ngir moo fi gën a moo moo dafa toll nen ni dañ ko fal pour mu liggéey loolu nag bu fekkee aw askan lañ la fal da ngay jàpp da ngay wàcc ci suuf dimbale nit ñi te bàyyi waa kaw gi rek xam parce que moom daal yaakaar ne euh, Macky Sall daal pour moom moom ak famille ma famille Sall Timbo Gassama ah mais ñun ci lañ bokk nañu gestu Macky Sall daal vraiment amuñ ci moom xol bu sedd non non moom moo ñu jiite mais amuñ ci moom xol bu sedd ndax njiit dafa war a yërëm ay njabootam yàlla moo ko teg suñu kanam dañ koy nangu mënuñ koo bañ parce que li yàlla def jaam bi bu bëggee noppalu da koy nangu mais moom yërëmuñu yërëmuñu suñ xol seddul ci moom